الحق ناصر الحق ناصري ناصر الحق ناصري ناصر الحق لخير ناصر الحق حقي بالحق تلهج الحق نتي ماي يتاريخك نتي ماي يتاريخك كجدا تابي الجان كجدا تابي الجان السان بملي آي نتي ماي يتاريخك كجدا تابي الجان dimbalil yaay dimbalil baay yërëmal maam yow tiijaan bi yow tiijaan bi yow tiijaan bi kuy tiijaan loo koy jaam yow tiijaan bi kuy tiijaan loo koy jaam yow tiijaan bi boo julli suba nga julli ki timis jàngal fatiha muy benn yoon astafurlah asimalori la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha yàlla kenn bur bi yàlla kenn bur bi yàlla kenn yàlla kenn la yokkal ma micro bi ma way yónnent bi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yàlla kenn yàlla nga teg ca xëy la li mu fukk ak amee juróom ñaar Yonent bi Yonent bi Yonent bi Yonent bi Yonent bi ana sappe Yonent bi sappe Yonent bi sappe Yonent bi ku ci gën a bëgg Yonent bi ana sappe Yonent bi sappe Yonent bi sappe Yonent bi ku ci gën a bëgg Yonent bi Yonent bi Abubakar ñoom Omar جمالهم محمد حالدا شيخ عمر شيخ عمر شيخ عمر شيخ عمر سبي سن باباكر سبي سن باباكر جيجيني كالامي جيجيني كالامي jigéeni kaalaabay ana soppey sëñ Babacar soppey sëñ Babacar ku ci gën a bëgg sëñ Babacar soppey sëñ Babacar ku ci gën a bëgg sëñ Babacar sëñ Babacar soppi sëñ Babacar Aboubacar ñoom Omar Aboubacar waaw ñoom Omar Mouhamadou Khalid Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu Tijaan ah Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu Tijaan Seexu Tijaan ah Seexu Tijaan mummi di kulli awliyaa rahmaani waxoy Seexu Tijaan سيخو تيجان آه سيخو آه، تيجان ممد كل أولياء رحماني سيخو تيجان سيخو تيجان كوي تيجان لو خيتكم سيخو تيجان يا راخلا متصبخا رقباني نخو الجنان روقي وارخاني سيح تيجان مو إبراهيم آه؟ bu cinquante mu nekk sunu xarit di wëllëre di sopp jigéen ñi seen xel dem ci moom ñu jël bés bu rëy bii nga xam ne xeneen moom la am ñu tudde ko ko mu ànd ak delegation bu rëy ñu xam ci ñu bari teew ci bés bi heure bi mu fi war a teew yàlla dogal bis yu mel nii bari ci moom bis bi jotaay yi mel nii bari ci moom waaye diir bi mu fi toog yàlla ak nun ak wuyu moo ko fi toog loo diir bi mu fi toog ñu bëggoon présenter leen ko ci kanamu chef de village. rahmatullahi taala wa barakaatu ah, maa ngi nuyu mbooloo mi ñu ci nekk seen tur seen sant di gërëm jigéen ñi nga xam ne aussi ñoo jël seen conférence bi nga xam ne benn la ci at bi mu nekk ci yooru koor ñu tuddee ma ko ah, ci loolu tamit dañuy jiital ci nuyoo bi ah, imaam dëkk bi tofantal tamit chef de village bi nga xam ne aussi sama pàpp la. di nuyu tamit ñi nga xam ne de passage mooy Mouhamed Diouf nekk conseiller Mame Malick Pape Ciss Abdourahmane Arona mi taxaw mun maa dugg xi tamit te jox ma kàddu lu mu gàtt gàtt mu ma leen nuyu ma leen sans pour autant aussi ma fàtte Babron mi toog mënumaa dugg xi nin jël kàddu wax ba daaneel te nuyu ma leen tudd ma seen tur ndax lu ko wund dafa bari té aussi amna naa lu tax mënuma ci dugg ndax dafa gatt su ko tamit chef de village sam bap la ndax mak malik ak ñom abdourahman yëpp ñoo nekk non université nu ñu jappoon ak nu ñu taxawoo yëpp ñun xam nañ ko dara umbuñ ci kon moom dañ koy beral nuyoo dañ koy beral loxo di tamit sant di nuyu tamit génération bi nga xam ne moom la ñu àndal ñu gunge ma ñuy jóge 50 ñuy jóge xay ñuy jóge tiawr ñuy jóge Kayel ñu and ak man gunge ma ci bës bi nga xam ne aussi moom moo nekk euh su ko defee tamit ñaari kaddu rek lay wax ñaari kaddu rek lay wax euh, ñaari kaddu yu du lenn lu jëre ngeen jëf jëre ngeen jëf mom lay wax jigen wa xeneen yi bu ci top moy ñom duñ mëgg na goré ñaari kaddu yo lay daanal gëlu ñepp di jéggal ñepp di ñaan yalla yalla boole nu jéggal ah mbooloo mii ak ñi leen fekk si ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm ak sutura ci weeru koor bi ñu nekk nii man de sama xol bekk na ndax mbooloo mu toll nii ah ñu def lu mel nii ay jigéen jiite ko taxawu ko xale yi dëkk bi ñëw taxawu leen loolu sa sawar nañu ci lool kontaan nañu ci ah Ibrahima ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant bu baax man dey sa tur yàgg naa ko dégg lool xam sa papa itam lool xamoon ko lool nag xam say waajur yi lool xam sa maam nag bu baax ndax man dey yoon wu baax yoon wu rafet xam naa ne jaar nga ca ndax xele yi say classe lañu wante jàppale nga leen ci ay côté yu bari ànd ak ñoo xam ko nag ndax kat mën nga nekk di def dara nga defe ne yow ak ki nga koy jëfal yéen ko xam waaye fekk ne am na ñu ko xam kon nag ñu ngi lay gërëm bu baax lay sant eh, di wax ni yàlla na la yàlla taxawu yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla gën a dimbali dafa la jàmm a ah, ñun dey ah sunu njaboot nga te itam dëkk bii nga gis nii nit ñu am ngoro fi dëkk nit ñu goree fi dëkk nit ñoo xam ne bu ñu jàppee lañuy ñuy jàpp dañ koy xool xoolaat ko soog koo jàpp na ngeen góorlu mag ñi lu ñu def it yéen la ñu koy defal jumaa ji ñu tabax nii jàkk ji ñuy tabax nii CM bi ñuy tabax nii école yi ñuy tabax nii kan moo fay jàngal lu muy seeni doom kan moo ko yor lu muy seeni doom ma ne xoolaat leen seen bopp xam yéene ñan parce que nit kat nit alhamdulillah ñoo ngi santaat borom bi subhanahu wa taala di julliwaat wat ci yonenta muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ci ñettelu tomb bi nga xam ne moo des ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi di jokkaloo bu dëgër bi nga xam ne am na ci diggante ngëm yàlla ak li nga xam ne moom moo di jikka li ñu ci njëkk wax moom mooy al axlaaqu samaraatul ibaadaat jikka mooy meññeefu jaamu yàlla li ñu sant nit ki mu koy def ci jaamu yàlla yépp nag dangay gis ne li ñu ciy xaar day nekk jikka boo ko xoolee lu mel ne julli borom bi subhanahu wa taala wax ñu ci alquran ne wa aqimi salata inna salata tanha an alfahshai walmunkar wala dicrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun borom bi ne na ngeen taxawal julli lan moo tax mu inna salata tanha anil an alfahshai munkar julli day tëri nit def lu bon bu julli bi wér na julli bi bu wéree mënoo génne jàkka ji mukk di saaga julli bi bu wéree yow di nga yëg ne ci jaamu yàlla laa jóge jaamu yàlla boobu moom moo lay contrôler ci lu bon ba beneen waxtu duggaat waxtu woowu it boo ko joxee mu contrôler waat ba beneen waxtu duggaat moo tax ci xadisu abi hurayra te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndax kenn si yéen bu amoon dex ci buntu këram bis bu ne mu sangu ci dex bi juróomi yoon est-ce que yaram bi dina deseti tilim tilim saxaaba yi ne ko déedéet mu ne julli juróom nii lay raxasi nit nga nekk nit ku set wecc sa diggante sa boroom mu baax waaye sa diggante ak sa moroom mu nekk loo xam ne lu baax la moo tax am na jëf yoo xam ne boo gisee nit di ko jëf neel julleegul julleegul mën na nag dem jàkka ja waaye julli defagul ci moom li mu war a def ci moom saa yu ko defee boo xamee nit di nga xam ne kii julleem am na loo xam ne moom la ko jariñ te it nañu bàyyee xel nit koo xam ne wuyu ji na boroomam ñu denc ko bàmmeel ya ñuy njëkk lijjanti foofu bokk na ci julli boobu bu dekkee àllaaxira moom mooy premier dossier bi ñuy njëkk laal moom su baaxee lépp day mujje baax mais bu yàqoo dara duñu ko xoolati kon julli day defar nit li tax ñu ne la boo kàbbaaree kàbbaaru armaal xoolal fi ngay sujjóot sa xel nga génnee ko ci àddina nga jéem a déeyaale ak sa borom ni mu jaadoo imaam bi fa muy naan assalaamu aleykum da nga yëg ne ruux bi tukki woon na daa ñëwaat mais mënul bokk ak mukk ki kàbbaar di xool altine fan la war a natt wala talaata nekk di lijjanti loolu ba ñu ne asalaamaaleykum kii ñàkk na respect boroomam am na ndaw soo xam ne histoire tudd na ko bind ko mais ba tey xamuñu turam ndaw si daa dëkk ak dëkkandoom ñu toog jekki-jekki gis néegu ñax ba mu dëkk di lakk di tàkk ñu ne waaw xanaa soxna diw daf fi newul tàkk-tàkk bi ñu daw pour wàllu si ko ñu ut ndox fay lakk-lakk bi ndeken soxna saa ngi ci biir di sujjóot ñu xaar mu pare ñu ne ko waa yow li doon tàkk sa kaw danga ko yëgul mën a shagalat nii naarul kubra an naari suxra dama doon bàyyee xel safara si yàlla ne mooy safara su mag si nekk àllaaxira bima fàtte safara su ndaw si nek adina ni ki julli dina def ci mom bu séenee alalu jaambur dana ko bàyyi fa mu ne waaye dana ragal ci deru jaambur waye dana ragal lu bare bare bare ki la julli di jariñ azaka hit borom bi daf leen khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim borom bi nee na yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnil azaka seen alal yi jëlal li ñu ci war a génnee ci azaka ñoom bu ñu ko joxee ci fiiraange bu ñu ko joxee ci fierté ak i nangu ne li santaane yàlla la day féexal xol yi ci nay ak bëgg ak iññaan moo tax gis nga alal day sax ci xol alal day sax ci xol waaye génnee bi ngay génnee li la yàlla wërsëgal jëme ci ku la tane wala fi nga ko war a def ci yaatum dënn te kenn forcé wu la xol boobu day gën a yaatu dënn bi day gën a leer mais feebaru bëgge siis iññaan iññati xeetu feebar yooyu dangay gis muy rocceeku nit ki nekk nit ko laa biir ab ibn Abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor bu daan musaani dugg day tabe bi gën a tabe ngelaw lu yor mu joxe ko lu yor mu joxe ko parce que lolu borom bi daf la ci jéggal say bàkkaar yi in tubdu sadaqat fa niimaa hi wa in tukhfuha wa tutuha fuqara fa huwa xayrun lakum wa yukaffir ankum min sayiaatikum kon joxe bi yàlla daf la ci faral say bàkkaar yi même be ci dépense bi ngay joxe sa kër jarul nga jéppi ndaw si joxe ko yàlla jox na la kilifteef ci kawam wala hunna mislu alladi alayhinna bil maaruf wali rijaali alayhinna daraja joxe bi nga koy joxe jaamu yàlla la say bàkkaar yi danañ ko ci far waaye it yow yaa ngi dundal koo xam ne wërsëgam yàlla ci yow la ko jaare yàlla jéggal say bàkkaar mais yàlla sàmmaale la ci joxe bi nga xam ne moom ngay joxe boo ko xoolee it ci koor gi ñu nekkee nii borom bi fa mu ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum illa bi mooy laallakum tattaquuna koor ngir nga am ragal yàlla la wéet nga ñàkkoo looy lekk ñàkkoo loo naan sa soxna si la lew sa soriwu la ànd ak loolu yëpp nga bàyyi nga bàyyi te yàllaa tax boo génnee ci koor lala la bàyyi loo loolu mu ngi continuer des ak yow ba léegi nga ragal bàkkaar ragal yàlla boobu nga génnaale koor gis nga koor bu ñu paree rek lu ñuy annoncé ban jaamu yàlla bu mag aj gis nga nit ci bu wóoree ba kooram baax buy génn ci koor gi diplôme bi ñu koy jox neexalee ko ko moo tudd attaqwa la alakum tattaquuna diplôme boobu nag bu dee day aji màkk diplôme boobu la yóbbaale moo tax borom bi wax ci aj wa tazawwadu fa inna xayra zaadi attaqwa wattaquuni kat yaa ulil albab borom bi di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am chance dem penku marchandise yaa ngi fa ñu ngi fay jënd or leneen ak leneen borom bi ne na ngeen ut yóbbal de na ngeen ut yóbbal de waaye yóbbal bi gën ci bi ñu war a ut mooy ragal yàlla diggale sa diggante ak li yàlla tere bi doo fa àgg waaye nga sawoor ci wéyal ay santaanem yi borom bi ne ragal leen mu nekk yéen ñi am xel yéen ñi am xel yéen ñi am xel yu sell ragal leen ma buur bi àttan lépp bu la ne ragal ma yow dellu siwaatal sa xel kon jaamu yàlla yépp boo xoolee ay jikk moo ciy meññ jikk yoo xam ne day raxas biiru nit ki ak bitam lépp loo xam ne lu koy tere àgg ci boroomam la mu mën a set ci xeetu jikk yooyu le moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne doya di jikka tegtal la ci doya di ngim yàlla ku la gën a doya di jikka moom moomu moo la gën a doya di ngim yàlla moo tax ci ay xadis yu bare bari lu mel ne xadisu abdullah ibn umar imam bayhaqi solo ko yonente bi salaa sallam nee na alxayaau wal imaanu qurina jamia fa iza rufi al fa ida rufia ahaduhuma rufi al axaru nee na kerse ak ngëm yàlla dañu leen lënkale dañu leen lënkale ba ñu mel ne ñaari béjjën yu nekk ci benn bopp benn bi bu demee beneen bi day dem du ko fa xaar jël na nag kerse tudd ko foofu parce que kerse ku mu ne ci moom digganteem ak boroomam lay njëkk lijjanti balaa digganteem ak nit ñi nit ki la laaj yow yaa ngi nar a wax lu dul dëgg ay waaye amal kerse ci sa borom nit ki amaana sa bopp waaye loolu dëgg mën na ne waa wax wax nga dëgg wax nga dëgg mais bàyyil xel ne moom xam-xamam lu mu gàtt gàtt sa borom bi nga xam ne wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid buum bi nga xam ne sidiit bi nga xam ne mooy vide de deret bi ci xol bi yàlla nee na sidiit boobu man maa la ko gën a jege nga am kersig sa boroom loolu dafay am solo lool kon jikka saa yu fi jógee ngëm yàlla def fiy jóge jikka su fi jógee rek ngëm yàlla def fiy jóge ngëm yàlla it bu fi jógee du fi bàyyi jikka kon ñoom ñaar lañu lënkale ndaxte kat ngëm yàlla boobu day ar nit ki ci jikko yu suufe yi waaye it day puuse nit ki jëme ko ci jikka yu tedd yi ngëm yàlla bu saxee ci nit ki daf koy tóoj mu gën a jege malaayika waaye bu jógee ci mom mom ak jikke hit daf koy soufel be mu melne bayima be mu melne mala ben philosophe allemand day wax ne al akhlaq min ghayri dinin abas jikko yo xamne àndul ak diine caaxaan la dadul jariñ borom dara waye diine bo àndul ak jikke yi caaxaan la hit da dul jariñ borom dara ñoom ñaar ñoom ñoo yem am ci benn zaimul hindi di wax ne inna diina wa makarim al axlaaqi huma sheyun wahid la yaqbalaani al infisala wala yaftariqaani ba'duha an ba'din fa huma wahdatun la tatajazza nee na diine ak ay jikko yu baax benn mbir la du ñaar benn la benn présenté nañu la mu ngi nii ku am diine la seenul ne it jikko yi noonu la rafetee buñ la présenté it mu ngi nii moom day yaakaaruma ci moom diine jikko bu ko xalaat benn mbir la moo xam ne kenn mënu leen tàqale du ñu nangu tàqali ko lenn li mënul dem bàyyi fi lenn li kon jus un laa yatajazza lenn la loo xam ne kenn mënu ko xar ñaar fi nga xam ne foofu laa jeexalee mooy ay ndénkaane yoo xam ne mën naa dimbali nit ki aaral ko ngëm yàllam waaye it aaral ko jikkam yi nga xam ne moo lënkaloo ak ngëm yàlla boobu li ci jiit mooy istirjaau taalimi diini fahman wa tatbiqa njàngalee lislaam nañ ko delloo siwaat nañ ko delloo siwaat ci kër yi nañ ko delloo siwaat ci société bi mais li ci gën a efficace mooy nit ki yar na ko delloo si ci boppam njaboot bi bu ñu xoolee ci yow rek góorlu mais bu demee be ki jiite moom mooy saggane yenn yi mais ñu roy ko ci day nekk lu jafe même bu diklee sa dikle bi doo am barke loolu nañ ko bàyyee xel bu baax delloo si wat njàngale lislaam baatu delloo si nag buñ ko xecc olof mooy lu fi ne woon mu commencé raaf nañ ko dabu delloo si wat ko jàngale yar tette te ku ne na xam ne koo gis ñu ne daa réussir effortu jàmbur lañu dajale jox la ko ñu ne danga réussir xeetu jàppale bu ne jàppale nañu la ko nga soog a àgg fi nga àgg maa nga soog a doon li nga doon yow loolu defal ko ñeneen loolu mooy avance la àddina kon njàngale diine il faut ñu delloo si waat ko yaraat nit ñi ci diine société boobu jàmm mun ci am waaye dal mun a am ñoom ñu mën a dund am teraangay adina ak al-akhirah lola ci jitt ñaarel bi mom moy faridatul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da am ñaari baat yoo xam ne jang katu al-qur'an nga min nga ko borom bi dana koy tuddu lu bare bare bare bare bari wal mu'minuna wal muminat baaduhum awliya'u baadin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar wal takun minkum ummatun yaduuna ila alxayri wa yamuruuna bil maaruufi wa yanhawna anil munkar mooy digle lu baax te ne ci waaye tere lu bon sori ko lii moom fu mu am fu ne jàmm rek naataange rek kaay am na ko li ñu noonu lislaam bi indil yépp ci ay droit droit de l'enfant droit de nangam droit de nangam droit yooyu alquran moo ci jiit alquran moo jiit ci droit yooyu ñoom dañu yéex a ñëw yar bi mu doon baax mooy doom doomu ñëpp la gis nga ko ci naka sudul noonu waxal ak moom lijjanti ko bu laajee duma nga duma ko jàmma doon na am doon na yombal it yar mais bi ñu indee xale kenn waru ko nangam xale kenn waru ko nangam mu mel ne ñooñu di ko wax nekkuñu woon ay xale ak seen bàyyi ni ñu leen taxawoo kon digle ab mbaax ne ci mais tere ab mbon lu bon moom baaxul ci kenn baaxul fen gis nga ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi ku gis ci yéen lu bon nako tere ak loxom am borom xam-xam ñu ne loxo moy état yàlla dina dolel état lo xamne duko du sax alquran alquran de usman ibn Affan lol la wax inna allaha la bis-sultani ma la yaz'uhu alquran yàlla dina dolel état lo xamne sax dooleelu ko alquran alquran kañ la tere naan sàngara mais état bu génnoon benn décret altine ëllëg bu ñu gisati benn place ci grande surface yi bu ñu gis gisati fenn ñu fay exposé sàngara kon dañ koy commencé appliquer suba te alquran yàgg na ko wax kon fal yu xayirhu bi yadi lenn boroom xam-xam ñu ne mooy état parce que am na doole boo xam ne moom moo ko am fa in lam fabilisaanihi bu dee yëg nga ne yow niveau tere boobu amoo ko waxal ak sa làmmiñ du sax yow yaay wax ak moom direct même boo mënul wax ak moom direct mais am na koo xam ne jombul mën naa wax ak moom nga gis kooku ne xale bii li muy def nii du dëgg du yoon yéen ñi ay kilifam wax leen ak moom yow yaa ngi ci yoonu njub fa in lam yastati fa bi qalbihi na ko bañ nag ak xolam na ko naqari ak xolam yaa ngi gis loo xam ne mënoo ci wax taxu ko dañ wala sax boo waxee sax mu jur fit na faf nga bàyyi sa loxo àggu fa naqarlu ko bu baax a baax nga yëg naqari na la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loolu bokk na ci xaaj ci xaaju ngeen yàlla yi waaye bul ànd ak ña koy def nag ñetteel bi ci yooyu moom mooy mil u faraaxil abna bi shay'in naafi fexe ba ndaw ñi ñi toll ci liggéey jéem leen occupé ci dara gis nga danger askan mu ngi commencé ci gis ay ndaw yu am doole am ñu lu ñuy def xëy toog fa ñuy toog noonu di waxtaan lu bon lu ne ñu ngi koy ràbb di ko xalaat ñu ngi koy xalaat xanaa xamoo ne kii lal ay pexe yu bon di ko ràbb daa am jot waaye ki fajaru génn dem uti lu muy dundee ak njabootam balaa ñëw géewe coono boobu leneen du ci tege lu dul sangu julli ay waxtu yi tëddi bu dee reer na ba pare moo tax xilaafa Ousmane na Affan ak xilaafa Umar bokk na fi ñu wuutele tomb bii Aboubacar radiallahu anhu ba mu génnee àddina ci xilaafa ñaari at ak ay weer Umar ibnul Xataab mu nekk fukki at waaye fukki at yooyu Umar daa bañoon ku génn Madina muy dem feneen day bëgg it kuy génn na yëglu bëggul it koo xam ne dëkku fi moom mu fiy ñëw di taxawaalu parce que lu bon fa mu ne ay nitoo koy jële foofu di ko dugal ci ay bopp bu dee déplacement bu ñu dul contrôler ñu am loolu sax boo xoolee suñu dëkk yi dafi doon am waa at yi lu mu gàtt gàtt gàtt ah, am na ci dëkk yoo xam ne kenn du leen rax déedéet ñëw nga guddi wala yenn heure yi dañ lay xoolaat lan lay dox kan la àndal Omar ibn Khattab loolu bokk na ci chance am Madida du nangu kenn génn kuy génn it na yëg foo jëm loo fay defi moo tax xoolal moom ak xusayfatul yamaani xusayfatul yamani sahaba yonent bi salaa sallam la tàggu na ko génn dem yi dem kuufa ba mu àggee kuufa mu toog fa diir daal di ko bind benn lettre ne ko man gis naa day soxna soo xam ne ab chrétien la dam koo bëgg a denc soxna ma ciy déglu sa ndigal wala sa xalaat mu ne ko bu dee gëm nga ne man maa fi nekkal yonent bi sallallahu alayhi ndaw soosu la bu ko takk dellu siwaatal Médine kooku ab nasaraan la alquran nee na mën nga leen takk waaye takk leen day tax jigéeni jullit ñi nga xam ne dugg nañ ci lislaam ñoom ñu lamb mu ne bu ko def dellu siwaatal fekk ndigal ak kiliftif mu ngi am waaye gis nga umaratul xataab ba mu faatoo Ousmane daal di ñëw Ousmane ba mu ñëwee ne nekk ci ay jàppal bàyyil yoo xam ne commencé na fa am mais seetaanoon na bàyyiwul woon xel ñiy dugg ak ñiy génn moo tax gis nga niñ ko reyee dañ ko fekk këram diggante tiim sa géewe muy jàng alquran tolloog suuratul baqara ñu daal di tëb miiram ñi ñu tuddee ay suwaar nga xam ne yeekatu fitna yi la ca waxtu wowule ñoom ñu daal di ko rey diggante timis sa géewe reyaale ñaari doomam yi sànni leen ci ginnaaw kër gi fitna boobu moo continuer ba aliyun ba mu ñëwee aliyun sax amul chance toog parce que dund na ñetti guerre yu tar guerre yoo xam ne yàlla rek kaa xam ne mu mettee guerre yoo xam ne abu aliya nee na man fekkee naa benn guerre ci guerre yooyu dama nekkoon ndaw lu am doole tàggatu am fas bu dëgër bi ma déggee ne jullit ñaa ngi xee dama wiire ginnaaw rëppatal sama fas dem ma kaalawu be kenn gisul lu dul samay bët yi te ku ma ku gis sama bët yi du ma xàmmee ba ma ñëwee taxaw xool sàppe bii ñu ngi ne allahu bar di bocc seen jaas yi ma xoolaat ñeneen ñu ñu ne allahu akbar di bocc seen xeec yi ma ne lii leerul lii su ma fi duggee bu ma deewee safara laa jëm jullit naka lay ree moroomu jullitam mu ne ma dellu ndànka yeewi sama fas dem tëddi mu ne pandémie bi mu wuree laa laaj ñu ne dafa am chi ayu ne ci biir wala abok alxawaarij ñi nga xam ne li ñu wane ak li am ci biir bokkul lay xew foofu la xewee kon ndaw ñi ndaw dañ koy canaliser ci lu ko amal njariñ sanction yi lu mu gën a métti bis bi muy dem bay tekki dana la sant wallahi dana la sant suñu magu daara yaa ngi fi toog ñoom oustaz Lamine ñoom oustaz Abdallah waaye ñu ngi leen di sant waxtu ne dañ leen di sant dañ leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay parce que am na yoo xam ne ñu ngi la ko doon def loo bi ngay gën a nekk ndaw mais doo gis lu dul ne dañu la doon sonal rek waaye fekk ëllëg am na lu ñu la bëggal mais bu demee mi nag jàng métier xeewi loolu màndarga la ci tukkite àddina yonent bi salaa salaam wax na ci xadis bu wér nee na bokk na ci màndargay axiru zaman liggéey day néew gis nga ñiy toog wéeru ci kuy liggéey ñoom ñooy gën a bari kiy liggéey waaw ah, waaw toog rek de lëwal bi fan la toll troisième bi fan la toll waa ji ko indi dem na mu ngi ci naaj wax bu ñu paree boobu ñu ne nañu boyalaat beneen hit waa ji guddi lay ñëw ñaari sax ñu fekkante lu mel nii nag gox gu mu am gox googu stabilité mënu fa am parce que ñooñu liggéey ñooñ dañu war a dund it ñoom bu ñu demee ba am ñu pexe yu ñuy dundee loolu mën na leen yóbbee ci ay xalaat yu bon àddu kalpe dogalee ngi fi agression mu ngi fi leneen ak leneen ak leneen mu ngi fi kon ndaw dañu koy insérer ci ay métier dañu koy insérer l'islam xeebul benn métier wallahi al azim xeebul benn métier benn métier rek la xeeb yolwaan yolwaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp kuy laaj alalu nit ñi te fekk am nga lu la doy yàlla ubbi na buntu ñàkk ko sa wet nit ñi de ay juróom lañ lay jox de ay fukki dërëm rek lañ lay jox bii yi moom lem nañu ko yow kay yaay jékki-jékki laaj ndax bànk bi liggéeyatul billet wala déet yonent bi sallallahu alayhi wasallam it wax na ci xadis bu wér nee na kii laaj nit ñi seen alal te am na loo xam ne doy na ko bu àllaaxira bu dekkee xar kanam yëpp ay picc yu mag lay doon ku gis xamne ki laj katu alal la won ci adina waron na dundé suturom ak ngoram alquran tagg sahaba ci suratul baqara mune lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu الجاهل min at'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhafa borom bi neena waa kër yonent bi alayhi salaatu saxaaba yi ñu ngi nii bëgg naa nag am ñu leen roy ñoo xam ne ñu ñàkkoon lañu ay condition tënk na leen ba mun ñu génn tukki dafi commerce wala daani seen doole feneen ñu baree bari bu ñu leen gisee dañuy yaakaar ne ñu am alal a ngi nii ngir lan seex laaj ak garde seen honneur ak seen dignité boo leen jegewul ba xam ne ñi soxla nañu nga dimbaleen guddi duñ la mus laaj bu dee ñoom ngay xar ñu laaj la loolu dañ koy dañ koy yar nit loolu dañ ciy yar nit doo gaaw a ñàkk sa dignité mbir yi bu mettee tey mais neexoon na démb neexoon na démb yonent bi salaa salaam soxna Aïcha radiyallahu anha nee na ñaari weer day romb kër yonent bi salaa salaam weer wala ñaari weer day romb cin du fa tàkk ibnu Hisham laaj ko ne ko kon yéen looloo leen daan dundee mu ne ñun ñu ngi doon dundee al ni na lekk tàndarma naan ndox yar ci njaboot bi ba kenn du génn di taxawaalu naan ne tey de ñun añuñu njaboot coono la de njaboot coono la mais loo def ci njaboot wallahi jihaat la te dana la noppal yow mi nga xam ne yaa leen njaboote ñi sonn yëpp moo ñu seetaan seen njaboot ci lu leen neex rek ndaw dañ koy responsabiliser yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkam du teg le juróomi waxtu yi mu gis ndaw loo xam ne boobu baa ngi ñuul kukkuk karaw muy ñëw ci juróomi waxtu yëpp loolu danañ ko laaj dana ko laaj da liggéeyul tey wala dangaa ngaa liggéeyul loolu boo xoolee bindkatul islaam yi sax dañ koy beral ay téere faf hmm? euh, euh, mushkilatul faqri wa kayfa alajaha al islam bu docteur Qardawi daanaka lu baree bari mu ngi ko fay wax ci lu mel noonu le toog na benn bis ak saxaaba yi mu gis benn waajoo xam ne saa yoo woote mu ngi ñëw toog mu ne ko yow xanaa amoo métier abubakar siddiq radiallahu anhu nee na dinaa gis nit ku tàmm jaamu yàlla min jaamu yàlla mais su ma ko laajee lan mooy sa métier muy dëngal loos nga amul métier ma xeeb ko poids am wàññeeku sama kanam nit day am métier waxuñu nit day am xaalis de nit day am métier mooy valoriser doomi aadama waaye du xaalis daanaka ñu amul métier sax boo xoolee ñu ëpp xaalis yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba boobu ba mu toogee ba mu paree ci jotaay boobu daa laaj seen mbokk mii daa soxla kan moo koy dimbali ñuy joxe mu dajale ko mu ne lii ut ci buum lii ut ci seen meñ lii ut ci jaasi lii lépp àll na del gor del gor boo mu mënee pour nga pour jaay këriñ wala nga gor saam ko jaay ay sayu mat kooku boo toppee dundam ginnaaw ga mujjee naa bokk ci ñu ëpp alal lislaam xeebul benn métier parce que métier day valoriser doomi aadama mais boo jàppee ne yow ñooñu du ñu nangoo fay est-ce que xam nga ne toog bii nangoo fay bii yenn saa yi dana ko tane parce que say soxla yi il faut nga wax ko il faut nga wax ko parce que nit nga da nga war a dund moo tax te fa ngay mujjee nag bu demee ba chronique bu demee ba nga chronique ci loolu kër yi dañu bari fulla de dañu bari fulla kër yi léegi ndékki moom kenn waxaalewu ko déedéet kenn joxatul kenn ndékki xanaa xale yu ndaw yi loolu daal yaay xool rek bu dee amoo métier nangoo liggéey bul sori kër gi añ boo def nànk kenn du la may de bu ko sori bu ko sori taxawal nga laaj añ bi fan la toll parce que am na fu ñu la boole ba pare bul sori reer moom yow nga gaaw dem lijjanti sa bopp kon il faut xale yi ñu encadrer leen ci ay métier tool yii dañ ko doon béy tool mën nga wax ne amatul déedéet loolu daal nañ ci xalaat bu baax a baax loolu dana dimbali doomi aadama mu garder ay valeur am beneen bi ci tege moom mooy توعية الأبناء بخصوص استخدام الأجهزة الإعلامية موي كونسيانتيزي خالي ناك لا نيو يفسندوكو نوفيل تكنولوجي بي انترنت بي تليفون يي راديو يي تلفزيون يي لغي صح تلفزيون دانكا كين سيتانو خانا يني ايفيتمان يي ريك مي تليفون يي نيك لوخو خالي يي مونغا واخنا 90% سي نيو يور تليفون يي خامنيو تليفون خامنيو كو xamuñu téléphone te téléphone yi lu ne mu ngi ci de programme nañ ci lu ne yaa xamul rek yow yaa xamul lu ne programme nañu ko ci mën nga wax ne lu ëpp tey ci téléphone yi nga xam ne tey boo bu doon woon tus la boo ko jëndaloon tey sa jigéen ji day naan bëggul bii bi ñuy raay bi ñuy raay mën a caméra mën a capturer lu ne mën ci seetaan ay séréem yeeg ay affaire am yi boobu la bëgg boobaa ëpp danger la boobu moo ëpp danger parce que am na secret yu ne ci biir wax joo wax ju ne am na fu ñu ko enristure yow yaakaar nga ne effacé nga ko ci kaw am na fu mu des mais mënoo ko xam message yi nga fiy envoyé ak photo yii muy dem fu ne am na fu ñu ko capturé moo tax boo xoolee tubaab yi liggéey téléphone moyen la ci jéemoo espionner nit ñi lan la ñuy dundee koo xam ne saa yu sangoo sol yi yére bu ñu paase mu ne nañ ma sinap bu paree mu sànni ko ci mbedd mi mooy facebook bi yenn saa yi da ngay wàcc école wala wàcc bureau ba balaa ngaa àgg kër ga xam nga li ngay añee parce que kat gaa yàgg nañ la woo ñu ne yë te te bi ñu préparé moom mën de ci réseau sociaux yi laa ko gisee lii lekk ko wër na gis naa benn boroom xam-xam euh, Cheikh Mouhamed Salih Ousaymin moom nee na ñu ngi ci jamono boo xam ne ñu ngi jàmbat cet lu baree baree baree baree bari waaye nee na bari na ci ñu ëpp nag fa mu leen jaaree moom mooy écran téléphone yi parce que yow yow mi jël sa doom tey nga jàpp ne lu jege sa xol la écran téléphone bii ki am sa numéro mën na ko capturer bul xam ne photo fan la jëm capturer na ko rek yóbbu na ko fu ne moo tax sax léegi mariage yi sa jaratul ngay sonn di xat-xat loo gis marié bi wala ngénte li fa nga toog noonu balaa jant so mën nga gis xew bi yëpp ni mu déroulé première attaque deuxième attaque troisième attaque lii la sol kii la fotowool doom bi lekk yi sax boo deful ndànk ñu won la ko lii musiba la bët yi bokkuñu làmmiñ yi bokkuñu moo tax jumtukaay yu xiriñ yi il faut ñu xam ni ñu koy jëfandikoo la cay cosaan nag mooy woote ak wuyu loolu moo ciy cosaan waaye tey booleel na booleel nañ la ci loo xam ne daa fees dell ak njariñ mais noonu la bare ay lor mu nekk silahun zu haddayni ni mu amee ay avantage noonu la amee ay inconvénients yu bon avantage yi yaa ngi ciy woote foo waroon paas mën nga toog minute yu gàtt nga woote lijjanti sa problème yaa ngi ci Wave compte Wave am nga ko Orange Money gis am na koo xam ne tey bu la naroon jox xaalis day ne da ngay paas nga ñëw Thiès naaj wi daa tàng danga koy wax mu yónnee la ko léegi fi nga toog yooyu ci njariñ yi la bokk ñu war ko santee yàlla nag wa yaxluqu ma la na alquran ba muy wàcc yàlla waxoon na ne danaa bind loo ne xamagul yow yaay dox bi ñu ne àgg na ci léegi sa sa sa marchandise bi nekk Chine jaratul ngay def yenn déplacement yi lan ca la yépp mën nañ la ko indi loolu la fuqaha yu tuddee woon ba bay u salam muy jaay marchandise boo xam ne dangay ngay avancé njëkk yi te gisagoo marchandise bi ñu ne la fii ak weer dana ñëw mun nañ la woon marchandise bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp su fekkee kat ku déggu la bu dee ku déggu la parce que ni ma koy waxee nii beneen côté bi noonu lañ noonu lañ ciy arnaqué ay nit fekk ay xaru jaamuru ñu sang bi mu rafet nga daal di leen nga ne ci opération tabaski nga nekk amoo xar amaale woo xar nit ku ko gis xool ko xoolam naat mu commencé ko waxaale te gisagu ko bu dee danga koy ne na la yónnee xaalis bi nga su sukkandiku ci xaalis boobu dem jëndal ko dem jox ko xaram lekk nga riba alal jàmbur kenn du commerce tey nag daa xew ci vente en ligne la ngay jaay yëpp yoroo ci dara yow daal da romb alalu jaamur rek nag ngay capturé yoroo dara sa kër dara new fa nga bëgg nag xaalisu jaambur bi ñu jiitalal la ko ba pare nga jël xaalis boobu su ko sundiku ci dem jëndi li ngay jëndi nga livré ko nit ki après bénéfice bi nga daal di ko dugal sa poche loolu daa xaram loolu riba la jullit du ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laa tabi bi ma laysa indaka amoo droit jaay lu newul ci yow da ngay dem jëndi ba pare nga ut sa prix booy livrer yaa xam bu dee dañ lay fekk sa kër it jël si ko yow yaa xam léegi yooyu yëpp jamono tey mu koy indi kon téléphone yi nañ ko bàyyee xel bu baax a baax ñu jëfandikoo ko ci loo xam ne mooy ëppal nit ñi njariñ que li nga xam ne daa fees dell ak lor léegi sax am na sujet yoo xam ne kenn mënatu ko wax ak nit téléphone ngir jamono ñàkk wóor ah yenn saa ñu ne la foo ne nga ne maa ngi fi est-ce mën nga déplacé wu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii secret boo ko waxee wor nga ko ci xadisu Tirmisi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit buy wax ak yow mu dégg ay tànk mu daal di wàññi baatam mbaa mu noppi boo waxee li ngeen waxante wor nga ko ci téléphone nag la gën a gravé nga xam ne da koy enregistré sax faf da koy enristre mu ngi wax bàyyiwul xel ci li muy wax moom day jékki-jékki rek ñu ne dugal nañ ko ci groupe sàngam mu ne waxewu ko woon nii yàlla xam na ne waxewu ma ko woon nii yaa ko tooñ wallahi tooñ nga ko jikku naa fekk ngi noonu leen wor parce que wóolu la moo taxoon mu doon wax ak yow mais boo xamoo ne woon da nga koy enregistré kon am na loo xam ne du ko wax loolu tey yàq na na kër yu bari kër yu baree baree baree baree yàqu na léegi xuloo ngeen nga ne première sos mooy danaa fexe enregistré yi muy wax yépp loolu du jikko jullit loolu du jikko jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñeenti jikkoo ngi nii ku mu nekk ci yow naafiq piir nga ci beneen riwaaya mu ne wa in salla wa saama wa hajja même boo wooree weeru koor nga julli julli juróom yi nga dem màkk ñëw tey nga gën a nekk mu commencé lim di lim mu ne wa isa xaasama fajara saa yu xulek yow dana la waxal lu dul sa jikka saa yu xulek yow dana fexe wili pande la façon boo xam ne ñëpp danañ la bàyyi te wallahi mbaax rek moo ne ci yow yooyu nag téléphone yi moo ci gën a gaaw yal nañ yàlla sàmmal suñu diine bu baax a baax waaye it ñu gën a góor góorgóorlu ci njaboot bi xale ba nga jëndal téléphone noonu am nga ci part de responsabilité yow am na lu la war ci moom beneen bi ci tegee mooy xusnu suhba wa tarbiya ala iktisaabi mihan mooy sa njaboot del xool ñi ñuy àndal sa kër yow la ko yàlla wërsëgal gis nga kër xéewal la wallahu jaala lakum min buyutikum sakana wa jaala lakum min juludil anami buyuta تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم كره ولا ده نيت أبنا للموي أم ويا أم الكر ده لجينا برتر أم الكر كون كره ولا دل فيه كر جي لونه هي الله دي تجيب تنجا خمنة إلا دينجا دجاج هي الله فكنا نقول مرك للا بينجا يكنا رك للا سكر جي يوم في جيجين دي في سي yonente bi salaa salaam nee na wal mar'atu raiyatun wa mas'ula an raiyatiha ndaw si responsable la ci kër gi tey li gën a bari tey ci yar li ko jafeel mooy yaay joo xam ne day nëbbal ay doom lu bari nga xew sa kër waaye du xew sa kanam de ndaw si nga bàyyi sa ginnaaw mu nekk ndaw soo am ci moom yaakaar mu ngi bàyyi lu bari di am ci kër gi te waxu la ko lu yàqu moo ko yàq moom mais war naa nekk nit ku mët lii borom kër gi bu fi ne woon du am kon du ma seetaan muy am lu ma ci góobe gare ko ci jigéen ju baax noonu lay mel mais seetaan la ñuy wax ñi njabootu kanaare ñu jiital la nga jiito xale yu topp sa ginnaaw dana metti yow àllaaxira de dana metti lool dana metti parce que àllaaxira boo yaakaaree ne daa waaxuñu rekle la nga dem duggi aljana te rekle wuñu xale yooyu sa kanam juum nga àddina wane na loolu la yow doo ànd ak sa ñetti doom yi ngeen di jël oto jaambur nga ne xale yi nañu njëkk a yéeg nga yéeg après nga jël sa paas rek nga ne sama yoon newul ci xale yi wax nga dëgg de booy wàcce moom yow di nga wàcc mais xale duñu wàcc xale yi <laughs> fu ñu fanaan di fa ànd ak ñoom fanaan mbaa yow nga dem ñibbi nga dem ndogoo sa kër xale yu ndogoo feneen allahiral loolu mooy logique bi góorgóorlu sa kër nga taxaw ci taxaw ci kër moo lay dimbali koo gis xamoo ko fi muy ànd ak sa njaboot laa jël kii doomu kan la kaddu yu ñaaw yi may dégg du moom moo koy wax ñu ne ci biti bu ma la fi gisati moom am lu mu ci jàngee bu fa naree ñëw wala mu gis keneen ku fa naree ñëw sax day wax kër googu lan mooy logique am bëgguñu fa nàngam yaa ngi yar mais seetaan xale yi ci lu leen ne yombal la leen lu mu mën a doon kooku moo tudd adduyus wala addayus yonent bi sallallahu alayhi wa nee na am na koo xam ne du dugg aljana ëllëg lu mu bari le bari la yu baax ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi kàddu googu mooy lan addayus sahaaba yi seen vocabulaire baat yi ñu tàmm dégg baat boobu daf ci bokkul moo tax ñu laaj ko yonent bi sallallahu alayhi ne leen mooy koo xam ne day seetaan mbon ci këram ne ci pat mel na ko xamul li xew mel na ko xamul li ci fin d'année bii ñu génne nii rek gis naa ci xale boo xam ne euh, xale bi jour 31 decembre fanaanul seen kër xale bu jigéen la fanaanu fa te loolu seen kër xamuñu loolu loolu xewu fa baayam ba muy tëddi xool na néegam waaye yëg na ne newu ba mu bësatee baayam daal di ko woo bàyyam moom a ko nettali ndey jaa tok toog moom it kazalika moom mu ngi toog magam bu góor mu ngi toog wax ja balaa moo pare bàyyi ji ne ko jox ma sa téléphone xale bi yuuxu bàyyi ji nangu téléphone bi xale bi yuuxu yëg ci kaw neen day dem xaru ji dañ ko dogaale buñ ko dogaale wonon day xaru si kisaka amul ci loolu le ma ne ko léegi après yoon téléphone bi loo ci def mu ne comme day xaru kay téléphone tolul ne bakken ma daal di ko delloo téléphone am ma ne ma ne ko pour nga xam biig ci guddi fi mu fanaan wala lu mu fa nekkee woon téléphone bi moom moo koy leeral parce que laaj nga ku mën a demul woon fenn ci koñ bi la nekkoon loolu téléphone moo koy leeral bu dee ay appel la yan heure la ak numéro yooyu ñooy yenn numéro bu dee am na it ay film nga jéem a xool image yooyu nga waxtaan ak moom ci dal loolu nag taaw yi ñoo ci gën a mën a dimbali seen baay yi parce que mag ñi bokk nañu xale yi jamono <laughs> yi may wax nii xam nga euh, mag yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk walla ay yaay loolu daf leen dépassé parce que jamono yi moo bokkul Ali ibn Abi Talib day wax ne yar leen seen doom ji ci seen jamono ñoom mais bu leen leen yar yéen seen jamono parce que jamono yi daa bokkul moo tax waaye taaw bu mu tee li mu doon wala ay mag yu responsable ne fa mën nañu lijjanti loolu la parce que moo xale yi ñaare ñooy bokk jamono beneen bi nga xam ne moom moo ci mujjee te mujjul moom mooy al ahzu bil masuliya al usariya jël responsabilité familiale loolu dugg na ci li nga xam ne moom laa njëkkoon wax kon daal lii mooy li jàppandaloon ci li nga xam ne moom la ñu waajaloon ci thème bii ñu gàlloon suñu loos ñuy sant ñépp kilifa yi fi ne kilifa aada yeeg kilifa diine yeeg yëpp imaam yeeg oustaz yeeg sëriñ si yëpp ñoo ngi leen di sant waaye di jagleel sant ak ngërëm suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo taxawal wala ñoo am initiative bu taxaw lu taxawal lu mel nii parce que seen moroom yaa ngi defe leneen hit te lii ku ko xool ci kaw bi ci suuf di nga xam ne valeur la valeur la valeur la loolu ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla barkeelal seen dund ak seen njaboot yàlla yaatal seen wërsëg yàlla doole leen juboo ak déggoo ak seen borom kër yi dëkk bi yàlla wàccee fi barke ak jàmm euh, xaw na maa yéem doonte xëy na ñi ma gën a jege danañu waxante li ma nar a wax nii xaw na maa yéem nag yéem bi mooy bari bi mu bari ay jàngkatu diine fii daf bari daf fi bari néew na loo soxla ci fànn ci fànn diine lu dul yàlla am na ci koo xam ne tàggat na ko mu yeewoo fii xam ci dara wala am ci pexe loolu nag wax dëgg fa yàlla sak la jar na sante yàlla bu baax a baax yàlla lawal ko fi te saxal ko fi loolu nag yëpp ci barkey baam ye maam yi ak baay yi parce que ñoo taaloon daara yi fii ay daara yu bare fi ne woon nga xam ne yow yaay tànn sax ban daara nga bëgg a yóbbu sa njaboot Oustaz Moustapha maa ngi ko doon seen sànqa yal na yàlla yokk ko wér waaye hit ka kazalika imam daawuda diouf yal na yàlla dolli ko wér yàlla dolli ko sàmma bu baax a baax a baax a baax a baax ñooñu ku wax seen tur rek sa xel dem ci daara ba ci suñu baay ji nga xam ne moom moo toog di borom dëkk bi di góor gi Habib Baye Habib mook sama baay ñoom ñoo nekkoon ci benn daara loolu dégg naa ko ci sama baay déggaat ko hit ci moom mii mu wax ko it sama nopp lu ëpp benn yoon am taalibe yoo xam ne sax foofu la ñu jógee ñëw fi nga xam ne moom moo di tëngéej loolu ki am initiative defar dëkk mënu ci participer lu mel nii jàngal nit nit koo jàngal rek def nga ko nit nit koo jàngal ku ne def nga ko nit mais koo seetaan ku ne def ko ma la yal na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla jéggale bàkkaar yi yàlla dolli sàmm bu baax a baax yàlla aar dëkk bi wàccee ci barke ak déggoo ak juboo yàlla soril ñu lépp loo xam ne ñu ngi koy ragal yàlla tiil ñu ayam loolu lu ko yomb la duma jeexal it lu dul sama njabootu bopp it dinaa leen sant it danaa leen sant wax dëgg fa yàlla ci jàppale bi ñu may jàppale am na ndaw soo xam ne buntam du ko tëj te sëriñ bi newul ci biir de déedéet waaye damay tàggu ci programme bu ne à ñu nangul la loolu wala mu tëj buntam nga ne ci biti pourtant mënoon na ne waa lan la fa nekkee ba li nga sëgg di ko jàng di ko liir mu mën a dugg sa xel loolu jigéen ju la jàppale moo ko mën mais pas ku yëkkati xaalis di la jox loolu kuna soxla na ko mais rawatina koo xam ne yàlla daf ko natto jàng diine nek méccam lol daf koy soxla lol di tok ak bopam di nafar diinem lolou day jaadu lol kon ñoo ngi leen di sant ñoom ñep di ñaan yàlla yàlla barkelal jotaay bi képp ku fi ñëw indaale fi bakkar yalla na yàlla jéggal la ku fi indaale tiis ak soxla yalla na yàlla taxawu zahiran wa batinan képp koo xam ne it indi na fi ab jàngaaro yal na yàlla saafara ko ci barke weeru koor gi yàlla nangul ñu jaamu yàlla yépp may ñu hit ñu tombek laylatul qadar te jaamu ko mu nangul ñu ko yiw bi mu wisaare ko ci dëkk bi yépp innahu waliyu dalika wal qadir alayhi njiit lu bees li nga xam ne hit moom la ñu tabb ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla jëfasandikoo ko ci lu ko ne yàlla bañ ko jëfasandikoo ci loo xam ne neexu ko yàlla kattanal ko ba yéene yi nga xam ne moom la am ci dëkk bi mun ko sellal mën ko it réaliser wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu khayran ya oustaz kon yaakaar naa liñ doon séentu si oustaz Ahmed Tidiane Diouf yëpp yàlla subhanahu wa taala feeñal na ko si jotaay bi kon ñu ngi koy ñaan diko ñaanal yalla ya yalla ya subhanahu wa taala may ko wër may ko wérle yokk rafet jikko mo ne kon tem bi muy ngëm yalla dañ koy jokkalek rafet jikko lolu motax yalla ya subhanahu wa taala tak yëndu sang ci jikko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim mo ko taggé ci jikko comme waxtaan bi leer na duñu ñu yokkute lëndëmal déedéet dañuy bàyyi ñi jël kàddu jël kàddu ñi nga xam ne ñooy laaj-laaj insha allah noonu la ñu bëgg a jotaay bi ndax yow mi toog ngay déglu kiy wax ci diine bu paree am na loo xam ne yaa ngi ko ci bëgg a laaj wala am na su loo xam ne yaa ngi ko ci bëgg a dolli ñaar yooyu ñoo fi ne kon incha ñu ngi ubbi jotaay bi ñi bëgg a commentaire ñu commentaire ñi bëgga a laaj incha ñu laaj ustaas a ngi fi incha li ñuy tëjee rek mooy ñu ngi koy ñaanal li ñu ko waxee woon sànq yàlla yokk xam-xamam fekk ay fanam may ko wér may ko wérlee barkeel njabootam si biir ak si biti. salaamaaleykum wa rahmatulahi taalaa wa barakaatu. ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu jigéen yi teew fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant oustaz da am question bu may laaj est-ce jigéen dañu ne jigéen bu yoree xaalisam da cee war a génnee azaka damay gis damaa gis am na natta boo xamante ne. diire na lu ma juróom at ci dëkk bi te dañu ne xaalis boo ko dencee sa at war nga koo génnee azaka léegi xaalis boobu damay laaj ndax boo ko jotee damay laaj ndax xaalis boobu bu ko nit jotee ndax war na cee génnee asaka loolu laay laaj di leen jaajëfal. question bi jiwoon sànk ci wàllu asaka suñu doom muy awanjaay laaj ko. asaka dafa am ay sart juróomi sart yi moy dajolo nga muna genné asaka Ben bu se manké do genné asaka bi ñeek da ngay nek julit kon ku dul julit du genné asaka ñaar bi da ngay nek gor jaam du génnee asaka ñetteel bi danga koy moom loo moomul doo si génnee asaka ñeenteel bi dafay mët nisaab mooy benn taux boo xam ne bu ko mëtee danga nga war génnee asaka booy génnee asaka da yaa ngi génnee deux virgule cinq pour cent exemple pour mu gën a leer boo amee un million da ngay génnee vingt cinq mille mooy si asaka boo bëggee xam pour mu gën a yomb si yow lépp loo am ca alal da koy diviser si quarante lu ma la jox mooy asaka bi jéneen tag juróomeel bi nag mooy mët un an na mët si yow at kon natt yooyu ngeen di natt duñu si génnee asaka pour mu leer si natt yooyu ngeen di natt duñu si génnee asaka ndax dañu la ko jox denc ko ko bu mot at bu moté at nga si génné asaka bu motul at do si génné asaka légui awa njaay bu ñu la joxé sa alal joju nga gis nat bi tey mom moy le 31 mars 2024 nga téye ko 31 mars 2025 da si génné asaka bu taux bi motee bu fekkee da ko lek bala le 31 do si génné asaka wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Assane ñu ngi lay gërëm bu baax a baax sa taxawaay borom caméraman bi encore ñu ngi lay gërëm di la sant seen taxawaay rafet na trop incha allahu bu ñu amul question ñu def ñaan incha allah. gis nga tiset yi ñu sol nii xale yi ko sol ku ne da ngaa génne 5000 francs daf ko bàyyi faalu sëñ Muniru jàppale ko jigéen ñi. waaw nee na xale yi ngeen seen ñu sol ay tiset. كودك براغا 177 داغا ген 5000 فرانك غير تاخو لي غان موما جوتاي بي كون يالنا يالا فاي لين سين 5000 فرانك يوي يال داف كو موي 1 مليون مون نكو يوم نكو يال نكو داف wa legi kon euh, al umuru bi khawatimha mbir yi li ci ëpp solo moom mooy tëjte bi ñoo ngi yi jéem a yëkkati jataay bi di toroxlu ci borom bi subhanahu wa ci barke weeru koor gi ñu jéema lu ñaan